daal suñu waajur yi suñu xarit Alaaji Mouhamadul Haadi euh, wax dëgg la ñun yàllaa ñu boole walla li ñuy xalaat li bu ma jógee ci fi nga tëmbali woon ci suñu collectif bi ulama ak imaamu Sikap Liberté 1 ba euh, Liberté 6 extension mu nekk loo xam ne ne borom bu takku la bu am solo la ëpp na tey ay at yaa ngi ànd ak ñun ñu ngi ànd ak yow. déglu leen tuuti. yaa ngi ànd ak ñun ñu ngi ànd ak yow. parce que suñu jigéen nga suñu rakk nga suñu jarbaat nga suñu lépp nga suñu xarit nga tamit dëgg yàlla parce que yow sa ñëw fii du soxla bi nga nekk wala wala indi fi parce fii sa kër la te wax dëgg yàlla bu dul woon naa ne kiw politique bi ngeen di dem di dugg di génn de dama leen naroon démb bi ma nii ni waxee mhm. daa wax sama soxna mu ñu defal leen añ mhm. <laughs> voilà ngeen di yendu ñu ne nag mu ne da ngeen am dangeen ngeen def programme pour yendu foofu après ngeen ñëw ci kër yi boo xam ne comme liggéey la tamit incha allah loolu passé wu euh, yow moom wax dëgg li nga wax kër gi imaam day jaaxaar waaye booy ñëwee bu ñu la wax dëgg yàlla parce que ànd ak ay ay at balaa lii di am lii ñëw tamit ñun ñu bokk ñu doon xemmemtu nga nekk candidat dem ba ci wax ak kilifa réew mi fekk yow waxoo ñu ci dara yàlla xam na dañoo am yéene gi rek ñu wax ko te bu ñu ko waxee tamit waxul waaw dafa muuñ rek mu ne ah, loolu nga wax imaam ma wax waaw mu muuñ bon donc loolu lu muy wane mooy li nga wax euh, li ñu fu ñu la teg ci suñu bopp donc ku ñëw ku bëgg ñëw fii sañ na ñëw fii candidat yëpp ku ñëw dañ koy dalal waaye nag li nga wax euh, ki ñu bëgg ki ñu gën a bëgg ku ñu jag ak ki ñu gën a jag donc loolu nga ñuy defal ñun waa ulama yi imaam yi fii balaa lii di am ci ay ati at teraanga gi nga jaarale ci ala jihaad yi dañu ko indil buggoo kañ ku ko wax sax waaye loolu moom ñun dañ ci sa <laughs> dañu la ci ñaanal xam naa ne duñu la ci gërëm dañu la ci ñaanal euh, donte am nañu lu ñu lekk waaye yow seetoo loolu dangaa seet rek ñii euh, yelloo na defal leen teraanga kon am nga def sarax neex na bu ñu la saraxee amoo neex na waaye bu ñu la defalee fekk wóor na la am nga dépense waaye ñu may la mhm. nga xam ne kii lu tax mu may la yéen que ku amul dépense du dëkk fii donc ñun nu ko suma jigéen bi waxee euh, Mati Fall euh, bokk nañ ci jiitu ci quartier bi te bokk nañ ñu ko dundal te jamono boobu maire bi fi nekkoon à l'époque nee na moom xamul woon ci mairie am la ñu bokk xam kooku moom du la njëriñ <laughs> xamul ci mairie am la bokk moom moom wax ci noppa ci la su ma nopp mu ne man xaw ma woon fii sama sama mairie xaw ma fu mu yem xaw ma woon ndax fii ci la bokk ma loolu moo tax xamuñu la xamuñu <laughs> bon ma ne ko rek ne kii bi a ngi nii ma indaale copie bi jox ko mu ne fii kay vraiment léegi ñu commencé yàlla def nag loolu am gàllankoor euh, financement boobu am fu mu dem mu am ay problème yàlla indiwaat beneen financement mooy centre bi fu mu nekk nii. bon donc loolu bu ñu amee ki nga xamee ne am na yéene di ñu di ànd ñun ci liggéey boobu wax dëgg yàlla kooku moom te wóor ñu mu ñu wóoree suñu toogaay fii loolu na ma wóoree allah boo jotee. Eh, fii dina dem kanam incha allah loolu aw ci benn bu ma amul woon tamit wax dëgg bu ma amul yaakaar dinaa la dalal euh, li ma mun waaye du la du la waxal li ma yaakaarul ci yow waaw que yow xam naa la ay at boo ànd ak nit ngay gis ay yéenam lu muy def nga xam ne aussi tamit euh, yàlla abal na ko moyen boobu bu mu defee yeneen mm-hmm. xëy na dina am yéene boobu xemmeemtu loolu waaye xëy na mooy am du mun a voilà état ki mu àndal kooku moo gën a yelloo ko waaye nag yàlla jox mooy jël su fekkee ne danga ragal yàlla yàlla lu la jox ay moyens yoo xam ne sa yow compté woo ci woon kon bu fekkee ne yaa ngi ñëw jógee ci kër diine kan mooy sa waa ji ñu xam fan la ñu xam ne ragal yàlla ak yow kon mën nañu ragal ndax nga li ngay wuti di ko te boo ko amee doo nax nit ñi ndax politiciens ñoo yàq dëkk ndax am na ñoo xam ne ah ñu ngi ut waaye bu ñu amee dañuy nax nit ñi mm-hmm. te ñun day njort nañ ne yow bokk ñu ñu ñaan yàlla na la yàlla jàpp ni fi toogee nii ah yàlla nañ toog ba le 23 passé mm-hmm. bañ toog di ko feet yàlla yàlla bañ a manqué damay ñaan yow ministère yi ñu la def muy yokk rek te mu bañ a wàññi. barakati rasulillah muy yokk rek du yokk rek kon lépp yaakaar bi ñu teg ci yow ak say mbokk ak fépp fu ñu mës a ànd yow te ñun ñu xam ko seede yàlla soxla. su may daanalee rek mooy ñu ngi delluwaat di ko dénk suñu bopp mais ni ko dénk surtout suñu candidat la benn muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr naa fexe bu fekkee ne fekk na si mu ñëw fi waaye léegi dina fi ñëw dina fi teg tànk moom tamit may ñaan nag ne yàlla bu ci beneen candidat ñëw bu fekkee ne ñëwuñu fi ba pare ñoom ñëpp nañu des si buntu bi te tëj leen beneen candidat ñëw te xam naa ne kenn ñëwagul dañoo réer ba nga dañu continuer réer jërëjëf loxo yi ngeen di tàccoo na ngeen ko gàddo seen kàddu sànnil ko Zahra Zahra Iyane rajo ngeen ko gàddu seen kàddu sànnil ko Zahra Zahra